di ko tiim nit keneen ku yoon di bëgg a dal ci kawam journal libération nee nañu moo di ki jiite société de transit bii di SITMA tuumay fraude douanière la koy toppee fa douane Sénégal jaar moom ba képp ko libération solo jëm li ñu koy toppee mi ngi toll ci ñeenti milliards ñeenti libération yéen kaay ñëw agin ci coowal fraude douanière la quatre milliards mhm. la douane bi sàkku de fi mu nekk nii ne wër nañu société bii di SITMA waaye directeur général am daa mujj a ah, fay rek mbaa kaso. Hmm. barki yonent bi. na fay waaw waaw. atte bor. tool mbaa taabal ja. Hmm. lii rek kay ne.